Come on, DJ Use Connection. Come on, DJ Gay FM. ñu amalante een bis bu nekk laxasoo kon bi sonnu ate xeex ñu tere ci mu du moom sa dénk tux bon ba kana soo faatu munta toog génn saa yu raxasoo ndey leel boppam mbedd bis bu nekk mer di yedd tekki sërëm jaay nee na ci lay tedd indi li des ci kër gi ñuy lekk medd mer di ko taqalee ni ko masa taqalee jaay géeji yéet bëgg a dundali pa moom di takk teg ni moom day polygame mu rëte rëte si wet suñ gi mel ni gàmmoo xale ji dëkkee xeex amul kenn ku leen sàmmoo yaay ak sama tante bés bu nekk mel ni dër dagga sante minute ak ma room ñoom ci heure bi kër gee jaaxaasoo sobe kenn mënu ko laabal sul tere ak a suli mel ni kuy football li geesu doomu wujju gaalo xaj nga koy tibbal kër gi mbalit du yére buddi liñ taxaw saaga amul kenn ku naan déet mag moom waxi nopp xolu sax moom bu déet per moom day seetaan seytaan moo daan li nga teg ci kër gi sart ëllëg buur bi dee la daan sa doole mëtewu ko nga naan dangay takki teg mënuñu am jàmm baa ñu naan baa ñu lekk say doom ak say soxna gis ko nu ñuy fande koñ bi dina ko xoole am su ñuun yërmande kër gee jaax

kër gi joy na wër def lu bon bis bu nek amul nor ak da wër ma mo dan wax det mais légui mëna tul bay mom day sétane kër gi bat la tul kër gi ja xasson sàkk la am nga kersa àjjana du coono rek ñu sàkk la toog ci kër gi akusee uf njaboot di fóot di bol taxan mat du ñëw di rot lotto ñu lee gën di lépp nga koy muñ te duni waaw kumba bàyyi la njaboot gu sew gi nga tegu sa kumba assuré seen jàng lu ne nga koy sumba mooy jigéen ñu desi l'islam ëllëg su ñëpp tiitar bis bu mag bu tislam ci yër mbënd borom bi aja nañu islam wàcce nga ci alquran suratul nisan góor yow la njëkk a tuut du xoole ko bëtu ndeysaan bul ko xooxatal toroxal xale ma ca kër mooy foo dogu yàq ci kër gi guddi ba ca ku soroxatul gumba bàyyi ko yàlla waanam bu toppee borom kër njaboot gi doon wàlli yaanam bëgg njaboot gi màgg li sumba lépp àgg picc moo sori tàgg banta banta ba muy àgg misaalu jëna ci salaam salaam euh, di ziar ñëpp ah, di bëggee képp nga xam ne instant bi euh, yaa ngi escorté sur la mer de bande fréquence 93 point 5 euh, Nga FM je crois on a fait trois émissions bon yi nga xam ne animation musicale na ngi def mais comme ni ma ko waxee saa su nekk tamit des fois ñu indi ay invité toog waxtaan bon waxtaan ah waxtaan ci point yu bëri noonu la demee ba tey looloo tax ma dalal Talla Thiam muy un expert en communication et analyse sociale et politique. Hein. Ok, je crois que euh, tay moy sunu ñenté rencontre wala ñetta euh ñu ñu tok di waxtaan euh di gëna yaatal té ñu bari dañ koy rafetlo ñu bari dañ koy rafetlu sa bo ñëw ñëw ci plateau bi di nga waxtaan lu am euh, solo euh ba nga xamni nit ñi euh, nañ ci euh jariñu té euh ñi nga xamni dañ nekk bitim réw ah, ñi nekk Espagne, Italie, Bologne ñëpp dañ koy euh, déglu hein. euh, ñu koy moo ñu koy ñaanal parce que c'est un jeune Mecquois euh, mais bon day def ay recherche hein, day def ay recherche parce que tamit dañu soxla dañu soxla jeune yooyu nga xam ni amal nañ njëriñ seen askan loolu tax tey ñu dalal ko pour seq ak moom waxtaanaa noonu la demee muy couleur urbaine di am tous les dimanches à partir de 15 heures jusqu'à 16 heures hein. comme ça su nekk noonu la leen koy waxee couleur urbaine pour ñëpp la pour ñëpp la joxe naa joxewoon naa numéro bee passé ñi nga xam ne dañ bëgg ñëw toog si plateau bi ñu wax lu nga xam ne day jariñ askan bi ah euh, ñun loolu lañ loolu lañ a soxla lu nga xam ne day euh, euh, moo nekk sunu objectif ah ba tax comme ni mu leen ko waxee moo tax ma dalal ku mel ni Talla Thiam muy un expert en communication et analyste ah, social et politique mi nii léegi damay technicien mu ubbi micro mu présenté mu nuyu ñi nga xam ne sant Euh, ñu ngi déglu couleur urbaine en fait sur la meilleure bande fréquence 93.5 FM aja salaamaaleykum wa ñu ngi lay nuyu monsieur Barro euh, di la jaajëfal ci sa invitation bi nga ñu adressé euh, à travers micro bi ñu ngi nuyu tout le peuple sénégalais mm-hmm. di nuyu aussi sa technicien bi nga xam ni moom la Hmm. sànqal jotaay ha? hmm. bi maam góor ah maam góor sëriñ maam góor di ko jaajëfal moom aussi di nuyu kilifa rajo bi muy sëriñ mahmoud diop di ko jaajëfal ci taxawaayam ci développement dëkk bi di nuyu soxna ajakoyaate mi nga xam ne moom lañ fi fekk moom it muy liggéey liggéey bu am solo ci kaw loolu itam ñu ngi nuyu peuple bi yépp di nuyu sénégalais yi waaye di nuyu suñuy kilifa commencé ko ci fi ñu gën a jegee muy kilifa dëkk bi monsieur maire Maguette Wade ak mboolem naataangoom yi fi nekk yëpp di nuyu sunu kilifa diine yi commencé ko ci Serigne Mountakha Mbacké Bachir ak xalifatul am fi tarixatil muridiya di nuyu sunu kilifa di xalifa bi nga xam ni moo féete Tidiane eh, muy mboolem ñi féete Tivaouane yëpp muy sunu xarit moom it di sunu soppe di ku ñu bëgg lool eh, di rafetlu taxawaayam ci diine ji mais di nuyu aussi mboolem kilifa diine yëpp euh, yi nga xam ñi ngi ci euh, réew mi mais sans oublier wa jangou bi jangou bi ñu ngi leen di nuyu ñom aussi seen taxaway ci woote jamm ci woote dal euh, ci woote stabilité ci lépp lo nga xam rek dana mëna tax réew mi nekk ci jamm ndax ñun ñoko mom hmm. donc ci kaw lolu aussi ci la amé jangat yu ndaw rek far yéene ko partager ak mboolem peuple bi yëpp. di wax rek inna lillahi wa inna ilayhi rajihun di jàlle suñuy frère suñuy mbokk suñuy àndi jàmm ñi nga xam ni ñu ngi ci armée bi di am ay gaañu gaañu ñu ngi leen di massawu ñi ci seen bakkan rot ñu ngi leen di massawu ndax suñuy frère lañ mais surtout suñuy frère yi nga xam ne ay xale yu seen bakkan rot ci xew-xew yi jot a am Nous ngi des di massawu nous avons des lañu frère aussi peuple sénégalais mais aussi djalé suñu aussi gens andi Jam, quartier général Serigne Saliou ak des ñu fa nekkal di nuyu suñu à travers soxna mi suñu Serigne Ahmadou ak ñi nga xamné ngi émission bi suñu natango yu nekk ba Europe wa Bologna ñi ngi connecté di la ndax Sénégal rek leen ñor waa France. Hmm. ñu ngi connecté aussi di la teewlu. à hmm. travers le Play Store. bon d' ailleurs sax d' ailleurs sax euh, comme ni nga ko waxee euh, dëkk bi li mu leen ñor des fois première information yi ñoom dañ koy am à temps réel. effectivement moo leen moo leen di wan ni kon. Euh, Sénégal ñor na leen ñor na leen trop ah. voilà loolu la ah. loolu la donc nañ xam ni situation bi jàmm loolu la. mais loolu ci la ñuy fas yéene développé incha allah. Hmm. te dinañ ñaan yàlla may nu ndam. Mhm. ba ñi ñu war a dégg dégguñu. Mhm. ba li ñu war a wax ñoom ñu dégg ko te jëfe ko. Mhm. du nuyu commandant brigade monsieur Sambou. nekk it ku am taxawaay bu rafet si dëkk bi. du nuyu suñuy xarit sëriñ yi fi nekk yëpp ku mel ni ki Daam Njaay nga xam ne moo ñu jàngal. suñuy xarit sëriñ am satu Mbàkke nuyu sëriñ euh, ki nga xam ne mooy Abdou saman Mbàkke sëñ Maxtaar Mbàkke moom la ñu waroon jiital mooy kilifa gi ku mel ni ki sëriñ Ahmed moom it di grand frère Koyaate mi Mm-hmm. Adja di suñu xarit moom it vraiment nekk suñu proche. Mm-hmm. di nuyu Serigne Maguette Seck ak mboolem ñiy teewlu. Mm-hmm. vraiment émission bi yëpp bàyyi wu nu kenn quoi. Dakar aussi léegi lañ may woo ñoom ñëpp ñu ne ñu ngi ñuy teewlu. vraiment di attendre ci ñun vraiment ay solution yoo xam ni mm. peut-être ak ay éclaircissement mm. yoo xam ni dana indi vraiment ak tamit ñi nga xam ne bëgg nañ dugg ah ñi nga xam ne bëgg nañ dugg tam joxe seen contribution mm. euh, maanaam comme ni nga ko waxee euh, si jàmm ah, parce que si jàmm la ñuy développé ñi nga xam ne tamit euh, bëgg nañ joxe seen contribution si émission bi mën nañ composé 88 628 16 50 88 628 16 50 ah mën composé 88 628 16 50

Uh, di nuyu waale aussi sunu doyen Ñanga Mbaw maa ngi koy nuyu vraiment moom it nit ku baax hmm. ak doyen sa grand frère Vieux Baro hmm. moom it sama xarit la trop ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom ñu ngi participer ci dëkk bi di participer aussi ci éducation xale yi hmm. ñooñu kenn demul ñu des parce que ñoo formé ingénieur yi ñoo formé président ñoo formé ñëpp muy jàngalekat yi ñu ngi leen di jaajëfal seen taxawaay donc di la wax rek problème bi peut-être am na si détails yoo xam ne duñ hmm. mais dans toutes choses, il faut qu'on remonte à la source c'est-à-dire il faut qu'on remonte donc à l'origine on parle de problèmes yoo xam ni kenn ku si nekk ci benn camp boo xam ni gis nañ li xew aussi am position bu ñu hmm. mais c'est quoi c'est l'État. Hmm. problème bi c'est l'État. il faut que ait ñu def différence entre État et gouvernement. ñu xam diggante État ak gouvernement quelle est la différence mm. pour que ñu mëna a ci loolu xamna ni bu ñu demee ci yenen point yi mm, ñu mëna dugg ci yoyu xotal mm. donc ñu ñew ci cause bi nga xamni mo xew muy li nga xamante ne si jot ci réew mi bon li nga xamni moy am solo moy nanu fété ci dëgg baña jël position jéem xol aussi li nga xamni mo xew jotoon nañ fi nek ay jamono yu wessu ci ay émission jotoon wax ci problème Covid donc dafa am lu xam dañ ko dafa a xel te dans la théorie et pratique ko le souverain veut rendre le peuple heureux selon l'idée qu'il s'en fait et il devient despote hmm. le peuple veut ne pas se laisser frustrer hmm. de la pénétration au bonheur commun hmm. à tous les hommes et il devient rebelle donc ku wax Emmanuel Kant. Hmm. moo indi boobu. léegi koy da koy wax si. donc euh, loolu li muy tekki rek. Hmm. mooy suñuy wax souveraineté. Hmm. dafa am aspect bu am solo. d'abord da ngay dégg ñu ne le peuple est souverain. loolu ñëpp d'accord nañ ci. donc euh, ki nga xam ne mooy ki souverain. mooy celui qui a le seul pouvoir suprême. qui juge en dernier ressort. l'état ou bien c'est le peuple la, ok ñu bàyyi xel c'est le peuple le peuple nag mooy ki nga xam ni mooy jóg tànn par les urnes hmm. ay nit ne ñii ñooñu doy pour ñu jiite ñu ci li nga xam ni moom lañ bokk loolu nag su xasee am le peuple mooy ki nga xam ni moo dajale dooleem nga jël sa doole ak sama doole ñun ñëpp ñu boole ko hmm. jël ne yow mi yaa nu doy dajale nañ suma doole yëpp jox na hmm. waaye lu muy tekki mooy doole ji dañ la ko jox pour bët yi ñu la jox nga xool fi ñu bëgg làmmiñ bi ñu la jox nga xool li ñuy wax hmm. kon bàyyeel xel ci ñun peuple hmm. ñun ñoo la jox doole yow mi nuy diriger yow yaay kan yow yaay gouvernement ba tey accès gunu ci état loolu lépp dafa duggaat ci yeneen structure yoo xam ne dafa yaatu ñun peuple ñoo dajale suñuy kartan ngay dagg suñuy ndox di dagg suñuy courant ñu teg ay tax suñu jëndee dara extérieur di ko dugal sax di nga ñu teg tax hmm. di dajale xaalis boobu ngir nga am doole ñun ñoo nangu jox la doole yow gouvernement hmm. yow président hmm. ñun peuple ñoo dajale suñu doole jox la ko ngir lan ngir ñun c'est pourquoi on dit le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple loolu dafa amoon ku ñuy wax Abraham Lincoln kooku maa ngi benn téereem liir naa ñetti téereem mais instant bi ma wax ak yow maa ngi benn téereem ci anglais. Hmm. kooku mooy premier président bi nga xam ni ci Amérique dafa jóg. Hmm. fas la jël. Hmm. di dox amerique cinquante deux états. New Jersey New Hampshire Georgia. New York Philadelphie si foofu yépp mu wër ko. di campagne àndul ak kenn fas la yor di campagne ba nekk président Amérique. kooku le concept de la démocratie def ci indi lu bare bare bare te loolu nga xam ne moo gën a siiw ci ñuy wax ne gouvernement du peuple gouvernement bu mën a jóg li ko war a tax a jóg mooy peuple bi hmm. moo ko war a ñor lu tax ñu ne du peuple c'est parce que peuple baa ko fa teg hmm. par le peuple bi mu fay jaar di nekk gouvernement ci peuple bi par les urnes ci la jaar ba nekk gouvernement hmm. ah pour le peuple moy kon lepp lu mu wara a def dafa wara nek luy jariñ peuple bi pas des membres du gouvernement non mais luy jariñ peuple bi mm. et car seul le peuple est souverain mm. lol nak suñ ko day bàyyee xel dañuy daldi meuna retourner quelles que soient les décisions quelles que soient les intentions mm. nañ am wala quelles que soient les comptes à rendre par rapport à des individus suñ nous ba gis ni peuple bi taxaw na damay taxaw ok léegi yow fii gisoo euh, incompréhension entre le peuple et le gouvernement est-ce que du euh, loolu moo xaw indi euh, maanaam ñàkk jàmm bi ci réew mi yow est-ce que du lool wala yaakaaroon ne loolu la. xam nga ci biir peuple bi da nga ci gis peuple bi état am. Hmm. état daal di dajaloo ci biir ñu gouvernement mais da ngay par exemple sur le plan sociologique ci l'État est un ensemble de personnes vivant sur un territoire déterminé et soumis à un gouvernement le mm. peuple bële nga formé sous forme d'État. Mm. ndax dafa am ñoo état républicain etc. Nous, mm. ñun ci état état de droit république la démocratie ñun Sénégal ci Sénégal, lañ bokk duñu monarchie duñu sommes bi mais nous, ñi ngi ci bok ci république te république suñ ko waxé peuple bobu nga xamni ne ñoo dajaloo. Hmm. nangoo doon état. Hmm. kon ñun. ñooy ñi nga xamni euh, de façon continue légui légui xam nga sànq maa ngi lay maa lay posé benn question man la. Hmm. est-ce que amul euh, mal compréhension entre le gouvernement et le peuple. euh tamit est-ce que tamit ñom gisuñu que dañoo salfaañe euh, suñu démocratie wala lu nga xamni yag nañ ko xeex tant d'années est-ce que gisoo lool waaw donc fofu la doon leeral. xam nga bu ñuy wax suñu démocratie. li njëkk ci sunu démocratie hmm. mooy dafa am benn mbir moo xam ni loolu droit de l'homme moo ko woote woon hmm. loolu boo xoolee dafa am réew yu bari yoo xam ni Nations Unies ndaw yu ci réew yëpp dañoo dajaloo jàng ci histoire hmm. histoire dafa am solo ndax boo ci jàngee danga naan ah lii de moo xewoon réew sàngam lii de moo xewoon réew sàngam ba mu xewee lan moo ko waral xañ nit ki maanaam li nga xam ne mooy liberté moo tax ñu woote la liberté d'expression Nek loo nga ni c'est un droit absolu Ken mënu koo xañ doomu aadama mm-hmm. ci biir loolu ci suñu constitution ñu wax ni mm-hmm. may nanu kep ko am lu ko naqari mu génn sañ wane lolo te du yàq mm-hmm. su fekkee ni loolu nga xam droit wam la man de dama jàpp ni su ni may nañ ko mu def ko mën naa am yàqutu ci am mais est-ce que est-ce que est-ce que gisoo que ni

loolu mooy li ëpp solo te loolu ñu ngi ko war a tàmbalee gis ci ñu ñuy hmm. c'est la vertu qui n'est autre chose que l'amour de la patrie. Hmm. et des lois l'amour de la patrie. Hmm. et des lois nañ taxaw foofu tuuti ndaxte ki nga xam ne sax tey moonu ñu jiite. dafa woote woon ni ah la patrie avant le parti. Yalla na yàlla def ba loolu nekk en pratique lu solide. waaye ci sama gis-gis man ci jàngat bi ma am loolu des na hmm. suñ dëgg dëgg suñu ko dëgëraloon ba ñu fexe ba patri nekk ci suñuy acte hmm. ci kanam que parti mën naa am yu bëri dinañ ci mucc hmm. kon foofu dafa amaat beneen mbir bu si tegu et de ces parce que patrie boobu ay loi ci la ñuy jaar ba mën koo dëgëral te loi yooyu daa am ñu nga xamante ni si ci la mën a jaar muy ay mécanisme ak ay bànqaas yoo xam ne dañoo bokk ci état te ñu teg leen ngir ñu sàmm loolu mm. muy armée bi yépp police gendarmerie ñépp man de ci sama kàddu man maa ngi rafetlu seen taxawaay mm. waaye di leen ñaan bu leen dara tax ñuy mm. dal ci askan bi mukk si àdduna ok am na am na am na image am na image am na am na image am na image yu doon circulé yu nga xam ne pour ñoom pour pour dëggal li nga wax rek pour wane que ni euh, à part violence yi am ak euh, yooyu yëpp ñoom benn lañ gis nañ que ni euh, ay image yu ay image yu rafet yi nga xam ne ñoom ñoo dajaloo ci mbedd mi wane que ni ñoom ñëpp c'est des sénégalais c'est des frères et sœurs ah. jërëjëf gis nga foofu mooy parce que ñoom le principe fondamental de la démocratie ñoom dañ koo xam. Hmm. c'est la vertu qui n'est rien d'autre que l'amour de la patrie. Hmm. bëgg sa réew sénégalais yi nekk ci biti réew. Mm. bàyyi seen liggéey. Mm. xool nangami junni junni doomu aadama yi génn. Mm. man de su doon man la ma nekk ci tet bi. ma nekk ki nga xam ni man lañ jox mécanisme. su doon man la laa wax ma nekk ki yor moteur bi. dinaa ne teg daal di déglu nag sama peuple. ndax ñoo ma jox doole ji. dinaa ni tekk daal di jël benn recul. ngir bakkan bañ nanu xool suñuy rakk. sama yaram dafa daw bi ma gisee image yi. Mm. Mm. Des enfants de 7 ans. Mm. des enfants de 10 ans. des enfants de 11 ans. des enfants de moins mais est-ce que est-ce que mère qui nga parce que si bu euh, day avez bu nga mais dañ gis de plus en plus day avez dañ euh, ah. parce que forme forme de violence day melni day gën di euh, yok yow yow ah, solo il ma tolloon sànq. Hmm. muy la liberté d'expression. Hmm. gis nga sa kër sax boko yoré bo hmm. boo gis ne nit ñi nga ñi nga jilif am na ñu ci mer. jox leen chance nga bay leen ñu génn seen mer. loolu day tax du exploser. soo fàttalikoo ci jamono yi weesu dama le xoon ni la à force d'user la force. la force finira par s'éliminer elle-même. trop de pouvoir élimine le pouvoir. Hmm. Est-ce que vous m'avez bien compris Si hmm. la à force su ngay utiliser de fini fini fini équilibre hmm. euh, euh, solo bu ci wax te euh, quand on Montesquieu mom la sax ci livre de l'esprit des lois hmm. Sans bi ni wax ci état di expliquer patrie ak loi hmm. dafa am disposition pour xamni dafa fofu te murran hmm. parce que euh, ñi jité ak li nga xamni gis liberté yi war a am ci entre les différents pouvoirs mm. xaw naa desandi ci li nga xam ni gis nañ ko ci sunu jàngat mm. foofu dafa wax ni il faut que par la disposition des choses le pouvoir arrête le pouvoir la liberté politique ne se trouve que dans les gouvernements modérés mm. donc modération boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax daf cee jàngale neen lu ëpp baaxul loo mën a gis rek ka ca modéré qui ki ci gën hmm. moo tax mu waxat la ni pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir moi pour ba ñu ci pouvoir il faut que par la disposition des choses le pouvoir arrête le pouvoir Quand hmm. les fiy gis président Amérique moi ëpp doole ci ndir qui yi ñu jot a hmm. président Amérique mën taxaw justice woolu Mm. noo ko yow président. lay gis nañ gis nañ tout est-ce que mës ngaa dégg fii ci sunu réew. gis nañ tamit tout récemment Joe Biden ak euh, Trump fa la mujjee démocratie moo dox kee moo gagné après moom lañ muy jox euh, kii victoire bi. dafa bañoon commencé nekk euh, di indi ay polémique expliqué affaire dem na mais après dañ ko dañ ko mettre ñu ñu ñu kii moo gagné kooku moo mujj accepté. donc xam nga kon. Hmm. dafa am foofu lu ma bëgg a leeral. Hmm. dafa am ñetti pouvoir. ce sont des pouvoirs fondamentaux le pouvoir judiciaire le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif le pouvoir législatif il faut que nous pour voter loi yi l'Assemblée. assemblée nous fa le pouvoir judiciaire est nga chargé l'exécution, exécution loolu ak di ko saytu ak di mm. ko topp ak di dal ci ñi nga xam ni respecté wuñu loi yooyu mm. waaye ki nga xam ni nag moom moo war a saytu loolu lépp mm. war a nekk ci arbitre bu libre ñoom ñëpp ku ci ne war naa arbitrer boppam muy le pouvoir exécutif léegi léegi ñett yooyu dama ni la soit yu ñu sàgganee ba benn ëpp ci doole moroomam équilibre dootul am te équilibre pouvoir yooyu su amul ci am réew day nekk déséquilibre li nga gis fan yi ñu woote ko xam nga li ñuy wax ci àdduna le pouvoir absolu yàlla rek moo ko jayoo hmm. yayoo képp ku jël pouvoir yow bu la yenee pouvoir absolu sax attunoo ko hmm. doomu aadama attunul pouvoir absolu hmm. moo tax man su ma doon jiite ñu bëgg may ràngal ay pouvoir di ma votel loo xam ni man sama bopp laa wax liñ may votel day tax may gën a mën a am pouvoir damay bañ ndax loolu damay xam ni ci sama biir sama kattan bi ma yàlla jox yàlla deful disposition ci man bu mën a tax ma am le pouvoir absolu hmm. te loolu amoon na avec la reine de Henri VIII en Angleterre hmm. Henri VIII boo xoolee Elizabeth the First bëri woon na ci loo xam ne xewoon na ci biir Angleterre ba foofu lañ njëkk am li nga xamante ne si wax moom la ñuy wax parlement te parlement boobu bi mu amee ci la ñu créer les concepts daal di créer ay assemblée et cetera et cetera parce que Angleterre dafa hmm. marqué lu bari ci histoire politique ak fu ñuy wax Grèce Athènes fofu dafa amone luñu wax la démocratie directe et la démocratie représentative tout le monde mënoon accéder ci gestion Grèce moy la démocratie directe ki gëna ndaw ba ci ki gëna mag amna droit wax xalaatam ci réew mi amna droit joxé xelam ci réew mi mais aussi amna droit ca la dogal mu am ci lu mu ci àddu hmm. c'était la démocratie directe dañuy permettre à tout ce qui était en Athènes ñu am accès ci boobu pouvoir parce que seul le peuple est souverain. Mm. léegi nag ci kaw loolu peuple yi dañuy màgg nation yi di multiplier wu. Mm. ñu amaat beneen pouvoir boo xam à travers cette démocratie directe li ñuy wax la démocratie représentative. Mm. ci la ñuy dajaloo nag ne léegi ñii la ñu yabal ci ndaw yi ndaw yi mi ngir représenter ñu fa. waaye bo xolé loolu limuy muy tekki mooy ñañu fa yabal ci jamono bu muy départ daaw ñu am sax salaire. kon tey buñ demee bay jël ay député di leen jox ay millions yu bari. Hmm. loolu man ngaañu ma ko waaye su doon man da duma ko def. Hmm. ndax ci départ suñ ko defoon comme na mu demee woon à l'origine hmm. mën na am problème yii xëy na dinañ ko kën a mën a moytu. ndaxte buñ demee ba nit mën a taxaw ne duma ma kenn ku dul diw. diw nga wax te diw moomu dañ koo jël teg ko. dañu ko jël teg ko noonu ñu ko fa tegee noonu lañ dafa fa tegee yow. Hmm. yow fàtte nga ñala teg nga ne man député diw laa lu di wax ma ànd ca hmm. kon foofu aussi hmm. mooy li nga xam ni wax dëgg fa yàlla ñun peuple bi yëpp war na noo xoolaat kon yan façon nit lañ war a tànn léegi maanaam ñu mën a violence violence bi nga xam ni am na ci réew mi est-ce que maanaam du indi euh, yenn xoolin bu nga xam ni nit ñi dañ koy xoolee euh, Sénégal maanaam sur le plan international euh, national Euh, est-ce que gisoo que ni euh, euh, comme ñoom instant bi ñu ngi xool kenn ñaanu ko yàlla mais affaire bu demee ba dégénéré est-ce que est-ce que du du du am ñeneen ñu nga xam ni maanaam dañuy ñëw wax comme souvent ni ñu koy demee parce que tamit gis nañ que ni comme sunu comme comme yeneen réew ñun bu ñu xamee am problème Sénégal daan na fa dem di leen kii yooyu léegi pour stopper pour stopper loolu yëpp jàmm am yow ban solution ngay joxe. wala ñuy egg foofu. Euh, jërëjëf ci kaw stope loolu pour jàmm am mooy li ma la wax sànq dama la jox ñaari jàngat yu gàtt. bi si njëkk mooy ñu delluwaat tuuti ginnaaw ci sunuy kilifa. Serigne Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg loolu te bi mbir mi déparé rek am na kilifa boo xam ni ba mu fa yeggee sàkku na ci njiital réew mi. mu xamal ko ne ko lépp loo mën a def man mm. njaboot ji nekk ci jàmm na nga ko def mm. te lépp lu mën a yee fitna ah loolu budul situation bi sax mu mm. Muntaxa yàgg na koy wax ah ki nga xam ni mooy xalifa Tiwaawan yàgg na koy wax ñoom seen appel yépp pourtant nag ñu bëri ñu bari dañ ne kilifa diine yi dañoo toog seen ruux rek euh, waxuñu ah, attention waaw ñu ñu bëri ñu bëri loolu lañ wax attention nañuy def ndànk xam nga léegi-léegi yëkkati baat rek tek ko ci kilifa dafa dis mm. ta ko xamni yiliful ben nit ay million yi doomu adama la yilif mm. ñun tamit nañ doll suñu teggin mm. nañ doll suñu yar nañ doll suñu warma mm-hmm. man ki fi tok di president est-ce que est-ce que tam ñi ngi leen di déglu xam problème moy tam est-ce que ñi est-ce que ñi ngi leen di déglu parce que télé yi bari nañ radio yi bari nañ mm-hmm. journalistes yi euh, bari nañ est-ce que ñom mm-hmm. tok ñu seen place information yi ni euh, joxe tamit té tamit euh, nenañ information bokoy joxe normalement dafa war am source mais euh, youtubeurs yi bari nañ ku si nekk yaa ngi jéem a fexe wane yi image te majeure partie image yi ñuy wane image yi nga xam ni euh, bon euh, kiwul dal léegi foofu mën naa la ci indi benn leeral. Mm-hmm. Mm-hmm. boo demee ci benn téere bu ñu wax des zéro mm-hmm. ku ñu wax Thomas Carlyle moo ko bind. foofu daf lay wax benn mbir mu am solo te ni la presse et le quatrième état du royaume. kon il faut que ñu xam loolu presse bi am na ñoo xam ni dañ ko utiliser pour me moins de guerre contre ses ennemis. Moi, mm. j'ai fait la communication je mm. ce que je dis. le contexte bien nous c'est un contexte boo me pose dañuy question. a je ma poser question mm. nan lañ def am loolu nga ma laaj. may ma la ci côté man la damay def recul. ci di di nga ñun Je nous cest à mooy man mooy ak keneen ku mel ni man su ma jógee ne kilifa nangam tax gëstuwuma dëgg-dëgg ndax xam ba xam kilifa gi wax naam déet ma tëb tëb rek ne waxul te wóoruma damay daal di juum bu même bu dul ci contexte bii Serigne Mountakha yàgg na di wax nanu fexe ba jàmm di am ci réew mi di ñaax ñi yor réew mi lépp lu mën a xew te mu wóor leen ne buñ ci àddoo jàmm am ñoom nañ ci àddu ba jàmm dellu si ñu mën a fexe benn solution bu ñu trouver pour loolu mën a régler wu man de ci sama xalaat ñi nga xame ni fii la réew mi toll su doon ni man maay président damay arrière damay reculer ba delluwaat ci kilifa diine yi kilifa aada yi dem ci jàngu bi ñoom ñëpp li xew ba nit ñi di faatu li nga xam ni moo xew ba ay sunuy rakk sama rangoñ dafa tuuru bi nga xamee ni xale bu ndaw innocent ñu faat ko ci koo xam ni yaakaar la réew mi la mm. waxuma la rek yaakaaru yaakaaru askanam waaye yaakaari réew mi la mm. ñu jaarale ko ci loolu kon man su doon man maa jiite laa wax maa jiite réew mi yi damay arrière dinaa arrière kon maa ngi ñaan ki jiite réew mi ci sama kàddu mu arrière ngir jëmme ñi ñu bokkal réew mi yépp muy jàngu bi kilifa diine yi nga xam ne àdduna yépp mu arrière mm. ndax li tax mu war a arrière mooy

te di leen gën a ñaaxaat ñu gën a amaat conscience ci bu leen dara ci àdduna jaral dal ci seen kaw askan mm. sa bopp ngay dal man duma dal ci sama bopp mm. pour lan pour un gouvernement boo xam ni defee jaar mais après day dem mm. te bu demee après beneen gouvernement mooy ñëw man de ñaan gi may ñaan loolu mooy pour jàmm mën a am ci coin point bi nga xam ni nag dama ni la su doon ni man la maay jiite danaa reculer parce que xalifa yi dañ cee wax nit ñi ne ni moytu di wax xalifa yu waxuñu xalifa yi am na ci wax yoo xam ne buñ koy wax ña ko war a jot rek ñoo ciy jot. mais yaakaaroon ni wante yaakaaroon ni yaakaaroon ni que dafa war a euh, def face au peuple sénégalais. Euh, euh, wax wax ak ñoom directement. waa léegi xam nga sëñ Baro. Hmm. dafa am droit. Hmm. nu mu tëddee. Hmm. si bi mbir mi di door a xew. déglu nga ko ci média yi. ñu wax ni mbir mi bi mu xewee. média yi wax nañu ko. sëriñ bi day jokkoo naa kilifa gi hmm. mu wax ko ni ko loolu day mbirum privé la ñaari citoyen sénégalais hmm. ñu am problème eh, yoon di ko régler vocal bii ma nekk fii yor ko nii may wax yow hmm. kii sotu sëriñ Touba moom génn na barki démb démb leeral ko xamal peuple bi bu baax ni sëriñ Muntaxa jokkoo na ak kilifa gi xamal ko ne ko nag lii nga xamante ni sii mooy xew lépp loo mën ba jàmm am ci rek na ko def kon su dee ni loo xam ni yow nekkul sa wàll wàllu yoon la bu dee ni dem na boo war a nekk sa wàll wala mu doon loo xam ni boo ci àddoo jàmm am na nga ci àddu ngir jàmm am. Hmm. kon nit ñi nañuy def ndànk ci dal ci kilifa yi bu ñu dal ci kilifa man ki nekk ci réew mi ànduma ak moom. Hmm. wax dëgg fa yàlla ndax ànduma ci ni muy doxalee ak réew mi. Hmm. mais du ma dal ci kawam parce que day représenté état Sénégal yëpp. day représenté peuple bi yëpp. wante ni muy gouverner rafetlu wu ma ko. waaye dama ko jox war ma. ba mu mat sëkk ni muy gouverner Sénégal depuis bi mu toogee ba léegi mosuma ci ànd mm. waaye dañ koy jox worma ndax damay gis ci moom du jëmmam waaye damay gis ci moom peuple Sénégal mm. kon dëgg waaye yow président yow mi nga xam ni ci yow dañuy gis ci yow peuple Sénégal mm. ñun peuple Sénégal ñoo la faloon dem nañ ba suñuy doom ñi ngi faatu suñuy rakk ñi ngi faatu dem nañ ba samay frère yu ma bokkaloon benn néeg di jàng université ñoo nar a ngir dalaat suñu kaw arriéral ngir jàmm dellu si ci réew mi suñu noppee waxtaanal ak kilifa diine yi waxtaanal ak opposition beeg ñëpp hmm. trouver beneen solution bu dul forcing forcing nag foo ko gis est-ce que gisoo que ni instant bi ni euh, occasion la occasion la occasion la instant bi ni ah. euh, pour mu déglu le peuple sénégalais parce que bo xolé euh instant bi ni rek ni ñuy manifester xam que ni euh, population bi xif nañ té bo xolé majeure partie ndaw yi ñoo ëpp lu ñuy gën ci mbedd té bo boo li ñuy ëpp lu ñuy toj moy station yi euh français yi ak Auchan yek yoy xam nga sànq maa doon wax ni est-ce que amul euh incompréhension entre l'État et le peuple le peuple sénégalais

dafa nekk peuple boo xam ni euh, vraiment ñi ngi sant je diaspora je diaspora mboolem sénégalais yi nekk ci diaspora bi yëpp ñoom vraiment ñi ngi leen di jaajëfal ñi nekk extérieur ñi nekk biti réew di yee sénégalais yi Sénégal dafa di réew moo xam ni li fi judd dafa bari Sénégal or bi fi génn kenn xamatul lu mu toll pétrole baa ngi fi zircon baa ngi fi et gaz baa ngi fi léegi kon bu ñu nekkee ci état boobu sénégalais yi xam ko ba pare ñu bëgg continuer chaque jour yëf yi di gën a metti loolu mën naa yee fitna parce que dafa mel ni kii sénégalais yi dañ naan waa ñun li nga xam ne suñu recherche la laajal ñi nekk extérieur ña nekk extérieur ci boppam ni ñu xamee ressources yu Sénégal am sax ñun ñi ci nekk ci réew mi am na ñu bëri ñoo xam ne xamee wuñ ko noonu kon loolu su amee ak li fi jot jaar yépp ci seetlu sénégalais gis n lu bëri

seen àq ak seen yelleef gouvernement bii nga xam ne ñun ñoo ko jël teg ko suñu kanam daf ko foqarti ci suñuy loxo peuple bi day daal di jug loolu nag yàlla buñ ci yegg moo tax may ñaan ci sama kàddu xam naa ni sax amul solo ngir peuple boobu nga xam ni ñoo dajaloo jël gouvernement bi teg seen kanam gouvernement boobu état muy mboole mécanisme yi doxal peuple bi yépp pilier wu ci kanamu gouvernement boobu kon ñun wàcc nañu am nañu ngor jox na la lépp yow gouvernement kon yow gouvernement ñi ngi lay ñaan peuple bi fii mu toll ba nara a naax saay ni ñu lemee woon suñuy tànk sukk ci sa kanam jébbal suñu lépp goreel nga lemaat say tànk jébbalaat nu lépp na lu ngeen bëgg jàmm nga fexe lu ndaw mooy tax jàmm am nañ bàyyi lii ñu bàyyi ko ba jàmm am nga xool benn yoon boo ko rek lay man de loolu mooy message bi may lancé li tax nag dinaa ci indi benn point point boo xamante ni si lu am am am solo la ndax dañ ni ci biir histoire ba fii ñu toll musta dañ ku ñuy wax Benjamin d'Israélit, moo ko indi ci benn téereem bu ñuy wax Koningsby Koningsby ab téere anglais la waaye lim ci leeral dani nul gouvernement ne peut être longtemps solide sans une redoutable opposition hmm. gouvernement bu dëgër balaa muy mën a taxaw taxawaay bu yàgg. te dëggu nekk ci démocratie day nangu opposition. day nangu opposition mais yow sax yow yow sax yow sax comme maag yow bu nekkee ci euh, rajo boole feneen ak feneen il faut nga am concurrent. pour nga mën a pour nga a liggéey carrément mais bu fekkente ne yow rek yaa fi. <laughs> waaw kay <laughs> doo doo maanaam doo xam sa kii. mooy li ma la wax sànq mooy loolu mën na indi le pouvoir absolu te loolu du am mukk ci àdduna yàlla rek ko yeyoo. Hmm. kon su dee man maa ngi gouvernement te ci jàngatu peuple bi ñoom gis nañ ni. képp ku fi waroon mën taxaw opposition dafa mel rek faagaagal nañ la gouvernement dafa wax sax euh, opposition loolu munta am ci état de droit mënul am ci peuple boo xam démocratie moo kon ci borom xam Benjamin gouvernement pour il faut que mu nangu ay opposition di exister sunu doom sunu pàppa doomu réew mi la doomu Sénégal la mm. du doomu waa Casamance Casamance Sénégal yépp benn la mm. samay rakka nga fa samay doom sam suñuy jabar suñu lépp nga Casamance mm. waa Casamance it seeni doom ak seeni jabar suñu lépp a ngi fii kon ñun ñëpp benn lañ kon moom moom nga xamante ni si sunu baay la di ko bëgg réew mi di ko xam ne réew mi rekk ko ñor ba lii dal ci kawam ah yalla nako ko yalla teggil mu nek lu woyof toyu moy Ousmane Sonko. loolu yi nag maa ngi ñaan sunu baay sunu baay di sunu njiit di sunu wax deug yalla euh, kilifa moy sunu baay Macky Sall di président de la République moom ñu koy ñaan na delo si war xelam comme ni sëñ Mountakha waxee won ta xamni ni moonu bokk njaboote ñun ñep sëgam moonu njaboote te mom kep moy ki nga xamni ni ah nan bàyyi li ñu bàyyi ko rek jàmm dellu si te ci kàddoom rek la loolu mën a jóge lillaahi wa rasuli ñu ngi koy ñaan mu wax kàddu gu tax lii dàkk ci jàmm ñëpp delluwaat ci jàmm mu delluwaat ci kilifa diine yi ba ci jàngu bi xool ban yoon la mën a jaaraat ngir solutionner loolu pas ci yoon bi nga xam ni peuple bi yëpp taxaw nañ ne dun arrière hmm. si nga peuple bi nee na du arrière kon maa ngi lay ñaan ci woyof ngir reculer ngir mën a sauver peuple bi nga xam ni hmm. moo la joxoon pouvoir bi nga am bon man message may lancé mooy na na na def comme na def comme discours yi muy faral di def ay fin d'année yeneen ak na jàkkaarloo peuple sénégalais yi wax ak euh, euh, ñoom léegi euh, li ñu dese si waxtu bëriwul maximum def naa est-ce que du cinq minutes cinq minutes mooy dese ok ba tey ba tey. waaw kon ci loolu. Hmm. te ci tënk rek jeexal bi. Hmm. jeexal bi mooy man damay taxaw ne may peuple may président président boo gis dafa am ay ambition. ambition pour moi, dina tax droit am wa dina faire ba nangam am waye lo gis rek dafa am fu muy dafa am man ma am ambition suma gisé ni peuple bi taxaw man damay taxaw samay ambition japp bu peuple bi itam jangat bi ci solo moy ki nga ci aphorism du temps du temps présent indi nous ñooñu du ñu bëri lu gérer état. John Jay John Hancock Paul Reville nous, ñëpp nga xam ni Amérique tey nous, bëgg c'est parce que réussi réussir installer un état de droit boo xam yow mi jiite léegi nous, reculer arrière ngir bàyyi sa askan ngir sauver sa askan. kooku lan la wax le véritable homme d'état est celui qui s'institue arbitre impartial.

taxul nga woye di taxul nga ñàkk euh, nekk ku crédible ba tey ku crédible ko waxee sànq waaye nga reculer te xam ne loolu mooy indi solution comme ni ko waxee sànq benn nguur rek moo dul jeex muy nguur suñu borom kase euh, bépp nguur bu mu mënti euh, doon day jeex kon nañ ko rafetal mhm. waaw nañ ko nañ ko rafetal loolu lañ parce que lépp day doonaat rétro lépp day doonaat rétro parce que lépp image yi dañ koy wanewaat kon na rafet voilà kon daal ñu ngi koy ñaan te di ko ñaanal aussi ñun Sénégal moo nu ñor man bokkuma ak moom gis-gis bokkuma ak moom parti waaye du tey ñu ñaanal ko ndax ku ko ñaanal jàmm sénégal am jàmm xañ na hmm. ñu ñaanal ko jàmm sénégal it ñu ñaanal jàmm sunu bàyyi sunu lépp muy président ousmane sonko hmm. di ko ñaanal sunu maam abdoulaye wadd hmm. koo xam ni def na ci réew mi lu bari di ko ñaanal mboolem ñu nu détenir ñu nu jàpp ñu génn ci jàmm sénégal yi delluwaat si jàmm ndax te aussi réew mi ci jàmm rek la xaj gis nga ni ñi ngi wax ni dañuy am néggandiku ngir teg njàng mi ci suuf kon xam nga ni jàmm su amul dara du sotti mm. jàmm su amul jàng mi du dem te ñun jàng rek lañ xam jàngal xale yi rek lañu xam kon su jàng amul am nuy wax ni ñu ngi koy gëstu nag ndax information bi c'est vrai ndax sànq média yi wax nañu ko ñu ne dañuy néggandiku ni ci jàng mi fii la le 15 ana loolu lu ko waral ñàkk jàmm kon yàlla na yàlla def jàmm ci Sénégal ah président bu dee mi ngi ñuy dégg lillaahi wa rasuuli ñu ngi koy ñaan mu reculer ngir jàmm mën a am su dee ni loolu mooy solution mu def ko ngir jëmmi peuple bi ngir jëmmi yàlla ak jëmmi kilifa diine yi nga xam ni ñoo fi nekk te amuñu lu dul Sénégal Sénégal amul ludul boppam ki nga xam ni bu dara métti woon bu dara doon tàkk mënu dem fenn fa muy tàkk rek fa lay toog kon na nanu xam ni suñu réew ñun ñoo ko moom moom mi nga xam ne ñun ñoo boole woon suñuy doole jox ko doole na suñuy doole jox ko ba réew mi toll fii lillaahi ñu ngi koy ñaan ngir jam mën delu ci Sénégal lool rek la amone message moy waxta di ko ñaanal jam itam diko ñaanal mboolem ñi nekk ci gouvernement bi ndax faruma ak ñom waye dama japp ne suñu amé jam xëñna na Sénégal am jam di ñaanal suñu opposants yépp di leen jaajëfal ndax opposition mënut a ñàkk ci état de droit dans une république il faut que opposition di am di leen jaajëfal ci seen taxaway di jaajëfal armée sénégalaise jëri ngeen jëf waye dimbali leen nu dolli leen yërmande ci peuple bi peuple bee leen di fay dolli leen yërmande ci peuple bi peuple bi mooy fay ñi leen di joxe ordre te ñi leen di joxe ordre nañ dellu yërmande ci peuple bi te xam ne fu ñu mën a nekk peuple baa leen fa bàyyi lu ñu mën di am peuple bee leen ko jox kon nañu delluwaat seen xel ci peuple bi te xam ne seul le peuple est souverain wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu muy muy Talla Thiam euh, expert en communication analyste euh, sociale et politique Euh, ñuy rafetlu ñuy rafetlu euh, say kàddu tamit te yaakaar naa li nga fi jot a joxe comme message li nga fi jot a euh, waxtaanee bon nañ ko dégg nga muy couleur urbaine di fàttali nii ñi c'est tous les dimanches à partir de quinze heures jusqu'à 16 heures di jaajëfal képp nga xam ne yaa ngi doon déglu la meilleure des bandes fréquence cinq Ngaye FM technique bi maam goon nekk fi ma leen jox incha allah di daje ba beneen ok. ji benn dem wax benn lay doon. Sénégal dafa metti. foo dem wax benn lay doon. réew mi dafa metti. dem wax benn lay